jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokk internet bu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. canta ngërëm ñeel na leen yéen ñi safoo site internet bi di 5M TV Sénégal li gën a fës ci bopp xabaar yi dañ koy do rek kàddu yi nga xamante ne kii di Alioune Tine daal dina koy yëkkati nag moom njiital Amnesty International ba woon nee na nag tere gi nga xamante ne tere nañ ko Ousmane Sonko ngir mu amal ab euh, cérémonie d'investiture mbir mu nu mel nag mbir mu doy waar la ginnaaw rek ba préfet bu Ndakaaru nag génnee ab xaatim ngir takkal euh, mbir mu nu mel moom nag la mu daal di xam ne rek dafay yoon rek ñu daal di respecté lépp loo xamante ne rek présidentiel nag moom la yelloo waaye lépp rek nañ ko amal ci transport transparence ak crédibilité waaye nag dal gu mat sëkk ndax nag jamono ji tolloo ci lépp rek la ñuy ndax égalité ñëpp rek ñoo yem ci ak ñoo yem ci yelleef ñeel candidature ki nga xamante nag moom mooy Ousmane Sonko ñu sàkkoo ko nag ci lieu de vote yi ba noppi rek tere gi nga xamante ne daal ko koy tere nag ngir mu amal ab meeting d'investiture am teguñu ko fenn di kàddu yi nga xamante kii di Alioune Tine daal dina koy yëkkati moom nag la mu daal di xamle ni fu ko neex waaye naka kii di Ousmane Sonko rek lu tax ah, saa yëkkatee kàddu rek bëgg a def ab yëngu-yëngal pouvoir bi ne naka doo ci dal mbir mu nu mel naka ah, jot na rek ñu daal di koy eh, càmbaraat ndax Ousmane Sonko ci jëmmi boppam rek ci askan mi la bokk waaye naka ah, candidat la comme ñëpp sénégalais la comme jot na rek mu daal di koy bàyyi mu def li nga xamante ne rek moom la bëgg a def ñeel langum politique ndax jamono ji nag li nga xamante ne moom lay administration di doxee ci processus électoral bi daal neexul ko lool ndax nag respecté wuñ ci leen transparente ak équité équité ak égalité bu mat sëkk nag la ñuy sàkku ci candidat yi yëpp waaye nag beneen fonction bi nga xamante daal dina koy yëkkati moom ci jëmmi boppam jamono ji nag na muy doxalee daal ci ñenn ci citoyen bu ci nekk rek am nga droit nag def sa souveraineté nga droit nag def li nga xamante ne rek moom nga war a def pour dagaan baatu askan wi ndax possibilité bu nu mel nag ñëpp lañ ko daal di may waaye nag lépp rek ci légitimité dëgg la waaye dafay wane ne Sénégal ci yëmmi boppam nag li di légitimité daf cee manqué trop candidat bi di Sonko mi nga xamante sax administrative ci seen jëmmi bopp li nga xamante ne la yoon santaane defuñu ko lenn te nag fii élection présidentielle 2024 ak opinion sénégalais yi yëpp nag jamono ji rek war nañoo xoolaat bu baax naka la ñuy def rek suufee processus électoral bi maanaam daal fexe amal élection yoo xamante ne jaar yoon lay doon élection yu amul benn difficulté boobee jamono ji nag nee na nag ñi ngay yaakaarloo nañu ba noppi rek di yaakaar ne nag difficulté yi nga xamante nekk na fi maanaam jafe-jafe yi nga xamante ne nekk na ci langum politique bi ak charge yi naam sax am na ñoo xamante ne sax ressentiruñ ko waaye nag jot na rek a réaliser nag élection bu mucc ne du am xaj yi ak seen mbir mu nu mel ñu daal di càmbaraat bu baax processus électoral bi nga xamante ne rek dafa war a tëddee ñaaxanaay bañ am xaj ak seen mu daal di yokk ne nag Macky Sall ci jëmi boppam dañ koo daal di faloon ko réew mi eh, ci ñaar fukki at yi passé waaye alternative démocratie bi nga xamante ne rek moom lañu soxla woon nag jamono ji ñu bëri daal di koy eh, soxla mooy nag mu libéré kii di Ousmane Sonko ak képp koo xamante ne rek ab détenu politique nga ngir nag langum politique bi mën a féex ba noppi rek ñu mën a dem ci élection yoo xamante ne yu jaar yoon lay doon élection yu am jàmm élection yu ànd ak sécurité élection yu ànd ak stabilité waaye nag mu nekk mbir moo xamante ne rek Sénégalais ci seen jëmmi bopp nag dinañ ci gis euh, seen bopp bu baax ñeel société civile bi ak autorité religieux yi ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy influenceurs yi surtout nag ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ci côté média bi ñu ngi sàkku rek ñu daal di mettre pression benn élection boo xamante rek élection yu dal lay doon yu transparente di kàddu kii di Alioune Tine jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche notification ngir amaa yeneen info